Euh, Uruguay tamit ci gox boobu la bokk euh, kon ñu ngi leen di dalal ñoom it suñ xaadim ñing mën naa ñëw jël kàddu teew na fi ànd ak rakkam ak soxnaam ñoom sax daanaka ay juróomi nit lañ xuma réew mépp te at amul benn événement bu ñuy jëlal seen addiyee te juróomi juróomi nit ñoo nekk ca ca réew ma wala juróomi murit bokk juróomi murit xam naa am na yeneen nit waaye ñun murit yi rek lañ jàppee ñun <laughs> waaw jàmbaar la ñu juróomi murit daal ñoom seeni jëfe ngi ñëw ci jumaa ji waaw kon sëñ Xaadim bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatulah. ñu ngi ziar ñu ngi tuub tey jégg lu baax a baax di ziar kenn ku ne ci turam ak ci santam leen baalu àq te leen di baal àq di rafetlu jataay bi waaw lii moom soññee lay doon ci ñun rek. di wax lii suñu jëwriñ wax noonu rek la demee di dëkk ba daal am na tur waaye amul mbooloo waaye nag benn ak ñaar ak ñett ci bokk yam bu nekkee ñeent te jëm fa ñu ëpp jëm incha allah ñaan nañu yàlla suñu doon àgg fa ak mbooloo maa bariwul waaye nag ñu nga góor góorgóorlu maa ngi tuub de <laughs> noonu daal la demee bu ko defee ñu daal di gën a soññuwaat rek daal di jaajuwaat wax dëgg yàlla ma déggee binaa bi nga def nii. donte bëri waaye man moom soo ñaan na ma lool waaw ba tax na moom ñu ngi ñaan yare suñu borom ni mu demee nii ren bu àdd yi ñëwaatee moom dañ gis ne waa ñun moom nañ daal ci kàttanu yàlla donte bëri wuñ nag la fa nekkoon ak su néew yoonu Amérique ji da cee yóbbu lu bare bëri bëri woon waaye gën nañoo néew ba tax ñu doon yokk lañ doon def waaye gën nañoo soññuwaat waaw di sàkk ci mboolem ko fi nekk rek ngeen ñaanal ñu mu di di gën faa bari ndax. waa kay addi ji gën a wóom barke borom Touba di sant bu baax di gërëm dañoo tëlee wax nag waaye sant nañ baax waaw di jottali daal moom nuyoo ak ziar bu suñu jëwriñ ndonga ñang ak mbooleem ku mu fa nekkandool rek di wax na asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw waxtu wi moom. waaw góor waay jërëjëf. ñu ngi di sant bu baax di leen gërëm te di rafetlu pas-pas